ñeel actualité bi gis nañ ay opération de déguerpissement yu nga xamante ni euh, nguur gi ñu ngi koy amal euh, notamment fële ca euh, Colobane gis ngeen image yi waaye gis nañ itam ki nga xamante ni moo di jëwriñ mu njëkk di Ousmane Sonko dem fa di ñaawlu vraiment li nga xamante ni am na muy manque d'accompagnement bi nga xamante ni am na ci mbir mi yéen déjà ban ban lecture ngeen am ci lu nu mel ndax nag ñoom jub jubal jubanti lañ daal di woote. Aïcha merci beaucoup. di félicité le premier ministre aussi ni mu tawee démb Colobane teewee Colobane teewoon marché Sénégal yëpp ndax problème bi dafa yàgg de presque deux mois la le 7 mai ba mu juumul la problème yi commencé ba tey mhm. depuis Thiès Kaolack euh, Ziguinchor Saint-Louis Louga ak à Dakar dans beaucoup de marchés mhm. ñaawlu ko baax nag xam nga souvent Sénégal ñun léegi dañuy bàyyi ba mu métti ñu soog a jóg. da ngeen koy ñaawlu. waaw xam nga dafa am loo xam ne dafa ñu boole muy la R204 R204 moo permettre képp koo xam ne da nga nekk un citoyen sénégalais et puis le Sénégal da ko ratifié en 2015 le 12 juin 2015 devant l'OIT mooy organisation internationale du travail mu amoon benn 104e session le 1 juin la session bi commencé ba le 12 juin loo xam ne dañ la war a protéger bépp travailleur boo xam ne da nga nekk ci sa réew Sénégal ratifié ko nag. muy un travail de sang am objectif yoo xam dafa nekk lu objectif clair yoo xam dañ ko ñun dañuy bëgg di wax loo xam ne day leer si bopp Sénégal yi si bopp monde bi muy féliciter la transition des travailleurs et des unités économiques de l'économie xam nga ñun dañu am vision boo xam ne dañ ko yóbbu mooy la transition de l'économie informelle vers formel xam nga bu ñu àndee ñun ñëpp Sénégal pour la formalisation des PME dana gën a yomb gis nga les marchands ambulants sont des dañu war a accompagner à travers des formations formalisation des financement bu ko deful et eh, tamit ñu utal leen tamit ay zones yoo xam ne danañ fa mën dem daan tañ doon mais mbedd bi dëgg la ay Sénégal yi ñu koy wax du solution mhm. du solution dañ koy wax te xam nañ solution te niñ koy occuper aussi jaarut yoon nañ waxante dëgg xam nga nous avons toujours dit depuis des années am nañu orientation bu bonne gouvernement bi fi jógee pour que ñu organiser bi am na proposition mais bu ñu proposé état ñoom ñooy war a ñëw ànd ak ñun waxtaan ak ñun le premier ministre na ko démb dañu war a xool lu ñuy def ba waxtaan ak les acteurs ñu ut nu ñu leen organiser ba nga xam ne mbedd bi toogaay bu fekkee mënut a tàkk dana wàññeeku. mais état day jël ay milliards di ko def si yeneen mbir yeneen mbir mais marchand tablier yi par exemple les chefs d'entreprise là tey bu ñu doon mun na plus de 3 de Sénégal yoo xam ñu ngi yëngu si lii te booy seet li ma wax kër goo dem rek am ñu nekk si bërëb boobu noonu. surtout ay si ay citoyen Sénégal la xam nga lan mooy problème bi Aïcha dafa am histoire boo xam ne mu ngi en maire de Dakar Khalifa Sall dafa defoon benn déguisement boo xam ne dafa gaañoon ñu bëree bëri bëri bëri ñu bëri déserté ñu bëri dugg si gaal gi ñu bëri yi kër tas mais gis nga doomu aadama yi ku lañ mayul jàmm doom jàmm man loolu laa gëm man si loolu xalifa loolu da koy toppatee mi ci loolu dañuy bëgg na état du Sénégal à travers le président de la République Bassirou Diomaye Faye son premier ministre ñu woote waxtaan. mais déguerpissement bi ànd ngeen ci. non non non non non non ànduñu si. déguerpissement de solution organisation mooy solution il faut qu'on essaie d'organiser les acteurs bàyyi leen déguerpir déguerpir depuis combien d'années yaa ngi dégg déguerpissement mais ça fait plus de cinq ça fait cinquante ans ñu ngi def déguerpissement boo xam ne dañuy indi ay moyens état bi teg ku ne teg ñu xee xuloo rente yàq après dañuy toogaat. mais nañu woote waxtaan ñu organiser le secteur am nañ am nañ une proposition d'un plan d'organisation du secteur bu ñu ko proposé état bi et waxtaan seeg les acteurs nekkul man rek y a des gens yoo xam ne ñu ngi secteur bi yu maîtriser le secteur. Hmm. moo tax ñun dañuy réfléchir à un moment donné ñu ne non duñu waxti marchand bi la non non seen CNPE ma dafa am loo xam daf ci nekk muy am na commerce. am na ñoo xam ne dañuy def santé am na ñoo xam ne dañuy def agriculture am na ñoo xam ne ñu ngi def pêche am na ñoo xam ne élevage am na ñoo xam ne ñu ngi ci artisanal bi ay secteurs yoo xam ne dañu leen boole liggéey boo xam ne dañ mën a avancer nekk gis nga Aïcha le premier ministre Ousmane Sonko xam nga souvent ñu naan yëg na affaire bi le 7 mai man d'accord mais def na loo geste boo xam ne dama ko apprécier c'est la première fois au Sénégal un premier ministre déplacé wu ñëw ci des acteurs des PME di leen masawu mais nañ ko apprécier loolu lu baax la man naa ah, personne man dama sama xol neexul woon ñu ngi leen ñu gaañ man kenn laalu ma kenn gaañu ma mais dama nekk seen njiit di leen xeexal kon ma gisee ñu may woo à tout instant di ma yuuxul di mu métti lool nag Aïcha cher camarade mu métti lool ay boolu gars yi tabaski bi ça fait juste bientôt deux semaines tey la deux semaines nit ñi dem seen dëkk yi ñëwaguñ. ou bien ñuy a ñëw mais ku bëggoon jël say bagages ak la nga soxla di nga ko jël. nañu arrêté le mot déguerpissement nañu woote waxtaan.